xam ne ni ñu ngi leen di jël di jëlee yeneen mbër si yeneen raison yi di leen indi fii nii mieux vaut ñu jël suñu mbër yi parce que ku si mel ni Serigne Ndiaye 2 buñ ko ko teeloon a wax avant mën na représenté Kaolack 120 kilos mën na wàññi poids am représenté Kaolack 120 kilos te boobaa tam ne am nañ yaakaar ne ñi fi nekk nii mu ngi Serigne Ndiaye xam dina des fii. lan moo waral loolu ngeen jógee seen dëkk dem jéggaani yeneen dëkk yi lan moo waral loolu maanaam loolu si dirigeant yi la parce que dirigeant yi nii ñoom ñëpp dañuy wàlli laaw xam nañ ne tey ñii jël nii muy 620 kilos bi muy 100 kilos bi muy Ziguinchor ñeneen xam nañ ne ren doxuñ seen seen seen saison doxul loolu ñun ñëpp xam nañ ko booy jël mbër da ngay jël mbër mi nga xam ne dafa prouvé yam dox nga indi ko mu teg ko mu représenté sa comme yeneen lii su mel ni Thiès xam nga ne xam nga ne li bi door yomb na génnee ah su mel ni Fatick am nañ poids lourd bu bàyyee jaaxaar mooy nu mu tuddati général Malika bu bàyyee jaaxaar Diourbel aussi xam nga ñoom ñu jëli seen i nit dem indi ay gàncax faama teg leen pourquoi pas ñun suñu booy dañ koy nekk gëm seen bopp rek. Mouhamed Bousso lañ teg Boy Faye. Boy Faye lañ teg xam naa bu baax Mouhamed Bousso mais comme ça image mooy gàncax faama. Cheikh Diourbel Seydou Diouf dañoo gëm seen bopp mën nañ bëre ay champion la ne ku mënoo tudd làmb te tuddoo Serigne Ndiaye 2 instant yi làmb toll dañ ñuy tegal ñi ne ñun moom lañ am ñun ñooñu la liiw ñooñu la ñuy napp mais dañ waruñ jëngaane dem jëli ñeneen rafetlu wuñ ko ñun ñu waa rafetlu loolu merci beaucoup comme ni nga ko waxee ah nit bu ne da ngay wax li nga def mooy nekk sa point de vue ñëw la wax naa la Fatick ceinture rouge Saliou Faye Ziguinchor ceinture bleue Plateau B non c'est ça les 66 c'est ici non 66 c'est là lui il reste là Ngor Niakh. Ngor Niakh Fatick Ngor Niakh et Saliou Faye Ziguinchor yéen la ñuy xaar Ngor Niakh Saliou Faye Ziguinchor. dégg nga plateau B. gën a yaya mu ngi noonu. Bilal dañu nuyu moom tamit daal yéeg kaw bâche bi nga yéeg. salaamaaleykum. Saliou Faye Ziguinchor en place. plateau B Saliou Faye Ziguinchor. parce que. gis nañ spectacle gis nañ en plus euh, bëri vraiment bëri xëy na quelque kii rek moo am quelque faille rek te soxla nañ. Babacar Sène Diourbel dernier appel. dafa am ñoo xam ne leen tekki digg bi ñoo xam ne leen taxaw ci guddi te nañ bàyyi xel ne ci ñi ci gannaaw am na ñoo xam ne ay mbër lañ am na ci ñoo xam ne ñooy ay mbër lañ donc nañ leen bàyyi xel ci loolu loolu dafa dafa mais bu ñu defee loolu rek on est vraiment satisfait. voilà en place. non vraiment on est kontaan nañ lool fépp kontaan yëpp vraiment yëpp waaye léegi nag mooy li may yóbbante mooy na nit ñi bàyyi xel ne ñoom am ñoo ay footballeur nawetaan la non ça soit clair ay mbërëm lamb lañ dañuy jël ci bunt yi te ay champion yu am na beneen grand bi ñu àndal fii ay champion ndaari maa yu nekk toog mais nag ñoom footballeur nawetaan nga ci lamb maanaam état bi suivre xale yi parce que xale yi ñu bëri dafa rafet trop te booy mën nañ la ñuy def dëgg yàlla mais jàppale bu amee rek booy la jëm ci kanam fi ñu ñoom ñu bëri ba jeex Moi, je suis l'entraîneur national de l'équipe féminine olympique. Donc, je suis de Ziguinchor. Je ne suis pas venue de la part de Ziguinchor. Et je suis venue en tant qu'entraîneur. vrai pour recevoir. Il n'y a pas de souci. C'est que les jeunes, les jeunes non-violence dans le sport. Non-violence dans le sport. Le sport doit unir, mais pas déshonorer. Inch'Allah, su yaay moom moo di déglu au passage ak ginnaaw moom dëgg yàlla ci yow ñoo koy dëggal. Jaajëf boo ko gisee fële la xam ne am na notion bi abilal. am na la ko ko waxee. 21e édition drapeau du chef de l'État région de Kaolack daal di koy ñu ngi fii ci deuxième daal dañuy daal di def rek nuyu suñu papa ak ñu doon rek seen suñu papa salaamaaleykum. moom Père nuyu naa la. ñëw naa ko trop. ñoo ngi koy waajalee tey ñu ngi gis dafa njëkk seen bis bi daal gis naa ne neex na. góor a ñaar amateur yi. góor a ñaar Dakar. Eh, fan si club yi population bi génn nañu. bu fekkee ah. bés bi nga xam ne bés bu Sénégal la. parce que ci Casamance la bokk. loo xam ne nag dañ si mooy làmb làmb mooy le sport de chez nous mooy suñu cosaan loo xam ne Sénégal yi Sénégal ñu koy seetaan ñoo koy toppee donc loolu vraiment muy mbégte ndaxte bu CNG déplacé ñëw ci région ñëw fi ñuy wax kaw la loolu génn jëmbal bés bi ak yar ak teg vraiment ñoo wax ne vraiment suñu dina sant si bëri bi neex na combat yi 14 régions yi ñëw nañ ñu ngi doon yàlla xam ci jël vraiment drapeau bi mais pour mu rek baax na ci Sénégal ndax ñëpp dafa ko Sénégal ay doomu ndey lañ doomu baay lañ donc premier gagne fête bi am na tam solo. waaw loolu xam nga yàgg yàgg na ci kanam ñu fekk si ne du est-ce que moo demee noonu loolu ñu ne jongante la. c'est pas de gagner, c'est de participer. Donne-moi cette crédit. di ko préparer